mbokki setan seetaan Hann TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi delu wat ci tafsir bi ñu ngi nekkon fi wa laqad alimtum lazina ahtadaw minkum fi fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan xaasiin ñooy waa bani israil lañu yàlla di leen tere woon ñu nappi samdi ñu nappi samedi waaye samdi yàlla nattu leen suñu demulee géej dañuy gis jën yi ñëw ba ci tefes gi di tëb di duggaat ci géej gi léegi ni kon yàlla tere nañu nappi samedi kon léegi nu ñu def dañuy jël mbaal ser yi ñu yóbbu ko ba ci géer gi ser leen foofu ko nappi wuñ dañ fa yóbbu mbaal yi rek mbaal yi fanaan fa su ko defee ñu jàpp jën yi su dimanche ñu xëcc ko mu mel ni dimanche la ñu nappi <laughs> jamono joo xam ne nappi nañu te du samedi duñu am jën te samedi la jën yi di ñëw yàlla su la bëggee nattu dalay lay xiirtal ci loo xam ne li nga gën a bëgg Mhm. ñu dem nag daal nappi bi ñu nappee ba pare yàlla ne alak leen ginnaaw ñetti fan ñu toogee ñetti fan yàlla wàcce mbugalam fa jaal naaha ma def ko mbugal ma euh, yàlla ne foqul naa ñu daal wax lahum ñeel leen baada salaasat ayaamin kuunu nekk leen xirdatan ay golo xaasi in yoo xam ne yo yoo way perte lañu mabu ay mabu ay diina yoo xam ne liñ leen soreel yërmande fa jaal naha def nañu alkande gi nakaalan muy li ñuy waaro li ma bay ni yadayha li nekk ci kanamam wa ma xalfaha ak li nekk ci ginnaaw ginnaawam ci ay xeet wa mawizatan waaree la lil muttaqiina ñeel way ragal yàlla yi wax jooju jeex na yàlla ne wadkuru na ngeen fàttaliku ba léegi yéen bani israil yonent yàlla Muusa sonnoon na ak bani israil wadkuru na ngeen fàttaliku id qaala musa li qawmihi bi Muusa waxee ñeel nitam ñi inna allaha yaamurukum an tasbahu baqaratan mooy lii la laa waxoon ci njalbeen saar wi lii moo tax ñu tuddee euh, saar wi suuratu baqar suuratu baqar euh, am na ku ñu rey ci bani israil ñu rey ko ci diggante ñaari dëkk xamuñ ku ko rey te waa ji boroom alal la woon ñu daldi ko rey ci diggante ñaari dëkk ñaari dëkk yi di jiiñante mën nga wax diggante ba ak Yarax Kipp ñu fekk benn waay ñu rey ko ci raay ba te boroom alal la waa Yarax Kipp ne Entourba waa Entourba ñoo ko rey waa Entourba ñee waa Kipp ñoo ko rey ñu jéggal ma ci misaal mi misaal damay joxe misaal rek léegi nag ñoom ñépp ñu guruboo dem ci yonent yàlla Muusa moo nekkoon seen yonent jamono mu dem ci euh, Moussa ne ko ñun daal dañu bëggoon ki nga xam ne moo rey suñu mbokk ma mu feeñ ñaanal ñu su borom mu tegtal ñu walla mu xamal kan moo rey suñu mbokk ma moo tax yàlla ne wazkur na nga wazkur na nga fàttaliku id qaala Muusa jamono ji nga xamne Musa waxna li qawmi ñeel nitam ñooñu ñewon na ci mom di sakku mu ñaanal leen yàlla mu leral leen seen bir mu ne inna allaha inna allaha ya'murukum an tazbahu baqaratan yàlla neena na dina ko leral way da ngeen di rey ben nak ben nak qalu ñu daldi wax musa atatakhizuna huzan a ah, ñun dañuy ñëw ci yow am suñu problème pour nga ñaanal ñu borom bi mu leeralal ñu ki rey suñu mbokk mi nga ñuy ji nga ñuy saboté di wax ne rey leen nag nag nag lu mu joteeg loolu qaala Muusaa leen auzu billaahi maa ngi auzu maa ngi muslu billaahi ci yàlla an na may lekk nekk minal jaahiliin bokk ci ñi nga xam ne dañuy yëjjiwaate dañuy saboté wa réer bay sabote yàlla na ma ci yàlla musa bi nga xamee ne yonent yàlla musa dogu ci loolu li mu wax loolu il faut ñu rey euh, nag qaalu ñu daal wax ne udu yu rabbaka yubayyinu lana maa hiya léegi laajal ñu bo sa borom léegi d'accord nañu rey nag waaye laajal sa borom nag wi ban nag la ban nag la maa qaala musaa musaa nee na innahu yàlla yaquulu mu ngi wax innaha nag ba kat baqaratun nag la laa faaridun wala bikurun nag wi nekkul nag woo xam ne wu màgget waaye nekkul nag woo xam ne nag wu ndaw hmm? nag wi màggetuwul ndawul ba mu ëpp awaanun bayna dafa nekk ci digganteem màgget nagu ndaw fafalu def leen maa tuumaruuna li ñu leen digal bihi ci lool min zabiha ci rendi nag ba xaalu ñu daal di dellusiwaat wax ne yu lana rabbaka yubayyinu lana maa lawnaha léegi sa d'accord nañu rey nag waa waaye dañu bëgg nga dem laajal laajal ñu sa borom nag wi lan ban melokaan bal couleur lay am mënu leen dem jël rey nag ngeen noppalu waaye il faut ngeen jafeñal yàlla jafe na qaala muusa ne innahu yaquulu innahu yàlla yaquulu mu ngi wax innaha baqaratun innaha nag wi baqaratun nag la wax safraa nag wu gel faaqi un lu tabbi law naxaa walla lu rafet law na naxa meloom gis nga law naxa te sur dina bégal an nazirin képp koo xam ne romb nga nag bi di ko xool dingay ngay bëgg ndax nag mi ni mu mel benn melo la loo xam ne nagu gel la gel mooy zone dégg xaanu ñu daal di wax ne udu lana rabbaka يبين لنا يبين لنا ما هي نح ان البقره قد تشابه علينا وانا ان شاء الله لا مهتدون نين لا جالس بوروم لغي مو وخال ني وخ ني ناغ وي نان لاي ميل باسكو ناغ يي دانيو نورو سي نيون دافا جاخسوك نيون كولور يي دافا جاخسوك نيون هم انا نيون كات ان شاء الله su neexee yàlla la muxtaduuna dinañ jub ilayha jëm ci nag wi wax nañ ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na suñu waxul woon insha allah dinañ ko jafeñal yàlla di gën a jafeñal ci ñoom qaala mu daal wax moom Moussa innahu yàlla yaquulu mu ngi wax innaha nag wa baqaratun nag la laa zaluulun du nag woo xam ne dafa torox dégg nag woo xam ne dañ ko euh, dañ ko yar boo xam ne tusiirul ar arda nag woo xam ne day jékki suuf mooy nag woo xam ne dafay bey du nag woo xam ne dafay bey bey walla woo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy war walla walla yu mel noonu wala tasqil xarsa nag yu tam du wëgg du dem ci mbalka yi di wëgg di génnee ndox pour jur yi déedéet nag woo du def loolu musallamatun nag woo xam ne lu yu bu mucc la laa siyaata fiha nag bi amul lëg benn lëgët laa amul lëgët qaalu ñu daal wax ne ñu soog a wax ne al léegi jiite indi nga dikke nga bil xaq ci dëgg ah wallaay dëgg la musa indi fa zabahuha ñu taal rendi nag ba wa ma te nekkuñu woon yafaaluuna wa ma xawuñu woon sax yafaaluun di ko def na ngir dëgër bopp yàlla na wa is qataltum fàttaliku leen bi ngeen reyee nafsan ba bakkan fa daaraatum ngeen di jiiñante fiihaa ci ga wa bi ngeen reyee nafsan bakkan fa daara atum ngeen jiiñante fiihaa ca rey ga te wallaahu yàlla nag muxrijun mooy aji génn aji génne maa ci la nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taktu taktumuun di ko nëbb fa qul naa ñu daldi di wax idribuuhu dóor leen waa ji bi baadiha ci lenn ci nag wa am na ñu wax ne geen gi lañ ko dóor néew bi jóg am na ñu wax ne làmmiñ wi lañ ko dóor mu jóg am na ñu wax ne der bi am na ñu wax ne genn wàll nag wi lañu dóore waa ji rek mu jóg mu ne diw doomu diw moo moo moo ma rey kazalika na ko noonu yuxyi llahu lay yàlla di dëkkalee almawta way dee yi wa yurikum mu woon leen aayaati yi tegtalam moom yàlla ci kattanam tegtalu kattanam laalakum ngir yéen taaqiluuna ngeen xalam lu ta am xel ngeen xel xelu su mu topp ginnaaw loolu asat daldi wow wow qulubukum seen xol ayuhal yahud yéen yahud yi min baadi dalik ginnaaw loolu fa na naka xol yi kal xijaarati ñu ngi mel ni ay doj fil qaswati ci wow aw ashaddu mbaloo moo gën a tar sax qaswatan ak wow wa inna min hijarat ndax amna ci xeer ay doj yo xamne ne la ma yatafajjaru dana da minhu ci mo ci ci xeer yi al anharu ay dekh wa inna minha amna ci ay xeer yo xamne ne la ma yashaqaqu dinañ xotteeku fa yakhruj dal de génn minhu ci doj yi al u ndokh wa inna minha bokk na ci la ma yaxbitu yoo dina daanu dana rot dana daanu min xasiyatillaahi ngir ragal yàlla wa ma laahu déet yàlla bi xaafilin muy nekk aji muy aji saggan amma taamaluuna bàyyi li ngeen di def déedéet wa innama yuaxirkum li waqtikum dana ko yéexee rek ba seen àpp jot yàlla ne afatat ma una ndax da yaakaar yéen jullit yi an yuuminu lakum yahuud yi gëm leen waqat kaana te dëgg ci dëgg-dëgg kaana nekkoon na fariqun kuréel minhum ci ñoom yasmauna ñuy déglu kalaamallaahi waxu yàlla fi tawreet ci tawreet su ma topp yuxarrifuunahu ñu daal ko wattu min baadi ma aqaluhu ginnaaw dégg nañ ko ginnaaw comprendre nañ ko waxum ñoom yaalamuun aji xam la annahum muftaruuna dañuy duur dañuy sos wa iza suñu dajee moom yahud yi ñoom ya euh, naafiq yi suñu dajee yahud yi allazina gaa yi nga xam ne amanu wa iza laqu su dajee naafiq yi ak yahud yi ñu dajee allazina gaa yi nga xam amanu gëm nañu qaalu ñu daal di wax amanna ñun kat gëm nañu bi na muhammadan nabiyun wa huwa mubasharu bihi fi kitaabina yonent bi sallallahu alayhi wasallam kak yonent la muhammad mi yonent la yàlla bégale woon nañ ko fi kitaabinaa ci suñu téere tawreet wa isa xalaa suñu delloo nag su delloo nag baaduhum ndel na ci ñoom ilaa baadin ci ñenn ñi ci seen patron yi walla seen njiit yi qaalu ñu daal di wax ne wax leen atuxaddisuunahum ndax da ngeen leen de solo bi ma fataha allahu aleykum yéen boroom xam-xam ngeen yéen yahud yi da dem ci jullit yi di leen solo loo xam ne euh, li yàlla wàcce li yàlla xamal li yàlla wàcce aleykum ci yéen fi tawréeti ci tawréet min naati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah mbaa du dangeen dem ci ñoom wax leen ni seen tur yonent bi wala seen melokaan yonent bi ñëw na ci tawréet leen lool ngeen leen bëgg wax li yuxaajukum ngir ñu mën a nag dagg ak yéen bi ci tur muhammad sallallahu alayhi wa sallam inda rabbikum fa seen boroom bu leen def loolu afala taaqiluuna xanaa du ngeen am xel qaala yàlla wax ne aw laa yaalamuuna xanaa xamuñu ista istifhaam li taqrir wal waaw daaxilun aliha li atfin an allaha yàlla aw lam yaalamuuna xanaa aw laa yaalamuuna xanaa xamuñu an allaha yàlla yaalamu aji xam la maa yusiruuna lépp loo xam ne dañ ko nëbb wa maa yuuliuna ak lépp loo xam ne dañ ko feeñal wa minhu am na ci yahud yi ummiyuuna ak ñi nga xam ne Euh, ñoo xam ummi mooy ki nga xam ne amul xam-xam jàngul laa yaalamuuna xamuñu alkitaaba téere tawreet illaa amaani lu dul seen mébét rek la ñu xam li ñu yaa li yaakaar ne wala ni ñu bëgg mu demee noonu rek noonu noonu loonu la yaakaar noonu lay demee wa in humu ñoom nekkuñu illaa yazunnuuna lu dul dañuy yaakaar te amuñu ko amuñ ci xam-xam fa waylun mbugal ñeel na li lesina ñeel gaa nga am ne yaktubuuna ñu ngi bind alkitaaba téere bi aydihim ci seen loxo dégg suma yaquluuna topp ñuy wax haha lii dee min indillahi ci yàlla la bawo li yastaru ngi ngir ñu watti bi hii ci loolu xamanan qalilan ak njëglu ne néew liñ leen neexal lañ ci yaakaar ñu watti aa yàlla yi fa waylun mbugal ñeel na lahum ñeel leen bi maa ci leen sabab bi nga xam ne kasabat katabat bind na ko ay dihim seen loxo yi wa waylun mbugal lahum ñeel na wàlla wa waylun ci safar lahum ñeel na leen bi maa mi maa ci li nga xam ne yàq si bu ñu ngi koy fàggu ci mina richa ci loo xam ne neexal neexal baaxul neexal baaxul neexal mooy ger kullu laxmin yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kullu laxmin bépp yaram bépp euh, yàpp boo xam ne nabata dafa sax fi suuxti ci alalu ger moo tax doq gi réy moo tax ndomboy baat bi rëy moo tax mu mu mu leer fal naaru aw la mu ne lakke ko safar moo moo moo moo ci yey képp koo xam ne sa yaram du ko dundal mooy alalu ger man yàlla su alaaxira safara laa koy dinde ba mu jeex takk wal iyaas billaah yàlla nañ ci yàlla musal fañ ci toll nag fiñ ci tollu doy na waar yow yaa ngi ci tali bi di lekk ger yaa ngi nekk ci tirbinaal bi di lekk ger yaa ngi ci jàngale gi di yàq lekk der yaa lekk ger ak leneen ak leneen ak leneen te làmmiñ wuy lekk riba loolu riba la làmmiñ luy lekk ger ak lii riba lu mu ñaan yàlla du ko nangu kullu laxmin nabata fi shahri fa nawru aw la bii kon ger baaxul ger mooy lépp loo xam ne lépp loo xam ne dafa tab bi ci loo xam ne loo ëpp li ñu la doon fay maanaam li ma bëgg a wax mooy dañ lay fay cent mille ci liggéey bi nga signé ak ñoom am mboosuma wala lu muntu doon ñu lay fay cent mille deux cent mille trois cent mille pour liggéey bi la keneen jóge fa bëgg nga liggéeyal ko loolu mu am lu mu la jox yaa ngi fayeku ñaari yoon policier bi noonu la gendarme bi noonu la douanier bi noonu la ak noonu loolu noonu police policier bi dañ laa fay pour képp koo xam ne def na infraction nga bindal ko kayit mu fay walla nga baal ko sa coobare bopp muñal ko loolu itam dafa am masala dafa am waaye arrêté ko mu def infraction nga war a ko bindal attestation mu fay mu jox la 1000 francs walla 500 nga dem dundee ko di ko dundal sa njaboot yaa ngi leen di dundal safar tabaxee ko sa kër R plus 1 walla ak lu mu mënti dëkk ci nag ba dee ci di ci dund ba ci dee. wal iyaas billahi nit ñi nañu bàyyi xel nañu bàyyi xel ger baaxul laana allahu arrashi wal murtashi yàlla nee na rëbb na rëbbum yàlla nekk na ci ki nga xam ne dafay ger ak ki koy ger kiy ger ak ki koy ger yépp ñoom ñoo yépp kiy geraate su dul woon moom kiy lekk ger du ko lekk du noonu kiy lekk ger kii kii ger ki ki ki ki ki kii lekk ger su dul woon moom kiy jox kii gere geraate du ko du du loolu du am waa ñoom ñépp arrashi wal murtashi huma finnaari ñoom ñaar ñépp ci safara lañ jëm léegi nag da ngay gis koo xam ne dafa yor oto bu neex oto bu tooy te nga koy ñee walla mu nekk ci dëkkuwaay boo xam ne yaa ngi koy ñee bàyyi bu saako dafa doon wax ne bàyyi leen di ñee ñi ngeen war a yërëm hmm? bàyyi leen di di ñee ñi ngeen war a yërëm koo xam ne ci riba la dëkk koo xam ne ci alalu ger dëkk kooku lu mu am ba ci àtte ba ci àtte soo àttee te lekk ci àtte bi neexal yàlla ne dinaa la dugal safar yàlla def alaysa allahu bi ahkamil hakimin te atte boo atte yàlla dina ko attewaat ëllëg yowmal qiyaama dina ko attewaat ci kanam kanamu yàlla borom subal kon ñu nekk di atte comme que atte wuñu ci téere yàlla bi lañu xaw nañu xaw a maandu bokk ci seen li ñuy atte ku am dëgg ñu jox ko dëggam ku am fen ñu jox ko fenam il est loolu rekk natul kon nañu bàyyi alalu ger baaxul wa qaalu wax nañu bi nga xamee ne tëkku nañ leen ci safara yonent bi takku leen tëkku leen ci safara qaalu ñu daal wax ne ñun kat ma nasa lanta masana naar illa ayyaman ma'dudatan ñun safara duñu laal duñu lakk lu dul 40 jours bi nga xam ne suñu maam yi jaamoo nañ ko yëkk wa loolu rek lañu dugg safar yàlla ne qul lahum qul lahum yaa muhammad sallallahu alaihi wasallam wax leen attaxastum ndax da ngeen jàpp indallahi fa yàlla ahadan kollëre yàlla moo leen wax ne 40 jours yépp rek ngeen du dugg safar te bu dee yàlla moo leen ko wax yàlla de fa lan yuxlifa allahu waadaw yàlla de moom bu dee moom moo leen ko dig yàlla moom du wuuteeg diggam lépp lu mu diggee dana ko def am walla taquluuna da ngeen di wax alallahi ci yàlla maa la taalamun li ngeen xamul walla da ngeen di wax di sànni rek wax ay kàcc waral ko yàlla te yàlla waxu leen ko bale aha kay man kasaba képp koo xam ne fàggu na sëyi atan bokkaale واهاتت مودال دي بيك بي سي موم خدي اتو بوكالم غو ولا مويام غو ولا نجومتيم دي فاولاك نيون اصحاب النار نيون نيوي سفر هم نيوم فيها سي سفر خالدون لا نيوي صح والذين غاي غا خمنا امنو گم نيو وعملوا ني جف الصالحات فرت يا اك نافله اولئك نيون اصحاب الجنه نيون نيون اجان هم نيوم فيها سي اجان خالدون لا نيوي صح يال نان يالا بوله wazkur wazkur na nga fàttaliku is axas naa bi ñu jàppee misaaq kóllëre bani israil bani israil fi tawreet waqul naa ñu daldi wax leen laa ta laa bu leen jaamu illallah ndare yàlla bu leen jaamu ndare yàlla min ibaad ci jaamu fa baaru dellu nañ bi xadabin ci mer alaa xadabin ci kaw mer وللكافرين يلا يفري عذاب بقل بقرن محين بودا يد كون سوكو ديف ني تاج في سونو بارا دي نيان يالا يالا نيو يالا ديفال توفيق اك تيسير لپ لو خامن جوب نتي يالا لتي لپ لو نتي جوم يالا نكو يالا جيغل آه، دي نيان يالا يالا ديفال ني فور جام ديفال ني كور يو كو ديفه يالا داخال ني seytaan yi daqal ñu feebar yi ba ak balaa yi yàlla defal ñu jàmmi àddina ak ak jàmmi alaaxir defal ñu xéewal àddina ak alaaxir euh, ki doon ànd ak yéen ci tafsir bi imaam Omar Diallo yàlla kappa aqulu qawli haza astafirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin wa ma tawfiqi illa billah ilayhi tawakkaltu wa ilayhi unib assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh